mbokk jërë ngeen jëf mbokk internet yi combat diggante Ama Baldé wala coow li topp Ama Baldé moom mi la di Gris Bordeaux na ci yëgati làmb muy combat bi am le 5 novembre prochain diggante Modou ak Ama Baldé mi nga xam ne sax euh, war na euh, daje ak Modou Lo boobee foofu ci arène national waaye na combat boobee nekk na en suspense ngir nag euh, différence juridique bi nga xam ne opposé na kii di ko laay daaf bu CNG Ndiaye Diop ak ki nga xam ne moo di l'homme ci Thiaw jamono joo xam ne nag benn procès autour de cette affiche euh, ñu ngi ko renvoyé niki le 16 janvier bi ñu dëgmal euh, combat bi nga xam ne nag confirmé nañ ko pour le 5 novembre prochain diggante amaa Baldé ak Gris Bordeaux euh, ak Modou Lo moom Gris du ci turam dëgg nag di Ibrahima Dione moom nekk ci jamono joojee président bu association nationale des lutteurs du Sénégal moom nag joxe na li nga xam ne moo di position moom nag défendre na les intérêts des lutteurs moom Gris Bordeaux waaye de affirmer que nag euh, li nga xam ne moom la duppee benn imbroglio euh, dem na nag ba jéggi sax li nga xam ne mooy compétence yu lii di CNG déclaration bu Gris Bordeaux nag euh, ni mu ko amalee rek moo dina ay fan a ngi ni ñu koy interpeller euh, ci bépp côté ci actualité bi nga xam ne jamono ji euh, moom la la askanu làmb di dundu ci lu jëm nag mbirum Ama Baldé nee nag mbir mu compliqué la mu aborder sujet bi nu mel ndax dafa nekk lu sensible waaye nag ci gis-gis yu wuute yoo xam ne mu ngi ci am en tant que moom mu nekk président association nationale de lutteurs du Sénégal daf ko war nag mu defendre les intérêts ñi nga xam ne mooy intérêt mbokki mbërëm am ci euh, euh, ñu bokk association bi le waaye tamit mu œuvrer pour la paix la stabilité du secteur muy secteur secteuru làmb euh, ca noonu nag ci la fàttali moom Gris doo que sponsoring bi dafa dépassé li nga xam ne mooy compétence du CNG li mu rek mooy promoteur bi ak mbëri ci terme yoo xam ne dañ ko waxtaanee ba mu leer parti dañuy daal di juboo ci kàddu ci ay points yoo xam ne du impliqué forcément li nga xam ne moom mooy CNG donte la sax moom mooy autorité suprême bu régulation li nga xam ne mooy làmb Euh, termes yu contrat yi nag euh, mën na euh, concerner ay nombre de face à face open press yu mbëri waaye nag sans compter sax li nga xam ne mooy la publicité contrat bi donc dafa am valeur juridique te loole rek su si demee ba contentieux am ci maanaam réeroo am ci ak humilité bu mat sëkk moom yaakaar ne rek justice moo war a leeral mbir mu ni mel ne nag ñaata yoon rek la ñu gis ay mbër yoo xam ne dégg nañ leen ñuy réclamer seen reliquat ci ay prometteurs yu Euh, waaye nag ndax gis nañu benn yoon rek euh, ñu gis CNG daal di sanctionné benn promoteur ci nag euh, ñàkk a honoré ay engagement am loolu di laaj boo xam ne moom ngir bu doo samp na ko ay mbër dañ leen di convoqué ci ay heures yoo xamante ni doo ko sax xam waaye du am benn bruit par conséquent nag li nga xam ne mooy sanction bi ñu teg ci ndodd Ama Baldé moom nga xam ne sax adversaire am la ci kanam moom ngir bu doo jàpp ne rek amul benn opportunité ndax nag ngir nga nekk juge ci mbir di ko àtte faaw nga impliqué wu ci ngir nag mën a maîtriser bu baax a baax li nga xam ne mooy les clauses du contrat loolee la xam ne moom Gris Bordeaux fois nag moom Gris Bordeaux nee na rek mu ngi woo CNG ci nag mu tenir des assises générales ngir permettre nag ñu statuer ci incident malheureux ak décider euh, ci implication en amont dans les signatures de contrat sponsoring entre li nga xam ne mooy mbër yi ak promoteurs yi vive la lutte mooy li nga xam ne tëjoon na ko déclaration boobu gannaaw nag bu mu joxee position ci mbir mi nga xam ne moo ñeel Ama Baldé ci combat bu dox ci digganteem ak ki nga xam ne moo di Modou Lo ak coow lu ci juddu jërë ngeen jëf mbokki internet li moo doon xibaar ci bile vidéo yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu ci àlande laataa loolu yëpp yeneen di like di abonné ci seen chaîne ku dégganti page bi te abonné goo ñu ngi lay ñaan nga abonné activé sa ko defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk suñu koy njëkk jot sant ngërëm ñeen na leen jërë ngeen jëf